naa dugg fii ñeme naa dugg seen biir kër ñeme naa dugg seen koñ am lu fa xew gars yi naa non bu leen fa dem wóorul ak yooyu noonu may la mais yéen da ngeen def ne ñooñu du yaay nit xamuñu xamuñu ñii ay nit lañ de ay nit lañ ay doomu aadama lañ dëkku waaw dëkk dëkkuwaay bu ruis dëkku cosaan jëkk boo xam ne sëñ Falloo ko sanc bind ci jàmm moo gën muy jàmm gën lii xew nag du jàmm gën kese àdduna bi yëpp la le tout le monde est en waaw parce que dañoo toll ci jamono jooju quoi di masaw lépp lu xew ci dëkk bi rek ñu ngi masaw ñëpp di jaale ñu ñàkk seen baxan ñëpp eh, di wax nag àdduna noonu la. mais nan la leen def seen koñ xam naa am ngeen lu leen naqari trop ay rëccu mi ngi ciy am ba ba ba ki nga xamante ni sax mooy moom Maama Lamine am na lu ko métti. noonu la demee nag parce que métti na lool xam nga naan des fois dara day xew mais après doo xam fu muy mujj mais fu mu mujjee daa ëpp loxo waaw di masaw maama bu baax. di ko naan gaynde yokkal jàmbaar yokkal góor àdduna nii la eh, bul foog ne day neex rek ba lu métti du ñëw bul foog ne tamit day métti rek ba lu neex du ñëw yàlla moom bind doo jaam waaw natt du wees te képp kuy dund rek bis dina ñëw borom bi teg la loo attan di ko ñaanal gaynde di ñaanal Serif barki maam Seera Fall Baay Fall la di wax lépp lu mës a defal nit ci lu baax muy muy lu nëbb muy lu feeñ yàlla na ko yàlla wallu loolu yàlla na ko fekk si si benn laaj boo xam ne dama la koy laaj gars yi des fois duñ ko ñeme mais man xam nga man dama leen ñeme man ak yéen non c'est la famille. mais gars yi di wax naan violence bi ci seen côté gars yi dañu war a kuul gars yi dañu war a wàññi mais du ñëpp ay benn benn ñaar rek la mais léegi loolu nan ngeen mën a def ba régler ko ci seen biir ak seen quartier. parfaitement ah, ñi fa dëkkul li ñuy wax. absolument lu mën a nekk la parce que yàlla mooy def loolu xëy na yàlla moom mooy xool fenn rek. def fa nit ñi di leen séentoo dara mais loolu ñuy séentoo dara nekkul si ñun mais tamit day day toll foo xamante ne dañuy tàng ba def lu ñu warul def di di di wax gars yi nañ calmé waat neer yi nañ naxante te xam ne àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. yéen ñëpp ay grand yi. non léegi nga dugg si làmb booy nga woon. sama copain si ñeneen ak leer gis nga ñun ñëpp c'est la famille. kenn dem na muy Fodé. mu nekk lu ñu naqari sama xarit ndeysaan kon loolu yëpp war na am ab jàngat. non ay jàngat la saa su ne rek yàlla tegal ñu misaal boo xamante ne dañ cee war a xëpp suñuy bët ndax Fodé kenn xamuloon lim doon mais bi mu demee lañ ko xam Serif nekkoon suñu biir nekk Baye Fall nattu dal ko gabu bokkoon si ñun yàlla jël ko ci ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana di masaw yaayam di masaw ay nijaayam ay naar gadda di masaw waa jaamu gën yëpp di wax tamit dee neexul ci xol quoi jur sa doom mu dee ci anam boo xamante ne neexu la waaw parce que kenn ñaanu loolu yàlla Serif ñaanu ko yàlla keneen ak keneen noonu xëy na yàlla moom moo ko bëggee noonu di ko ñaanal gaayen yàlla ko yàlla yërëm te xaar waxtaan seen biir pour gars yi gën a parce que li leen di tudd incha allah ñu ngi si cat topp leen waaw billaay gis nga ñun moom cat ñu xaw a ñun ak cat ñu dañoo sol moo cat <laughs> mais di masaw rek gaayen di wax yàlla nañ cat seexlu yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla suturaal ñu suñ combat ñaam yëpp yàlla may ñu ndam yàlla leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp man je suis jàmm gën loolu nag doo comprendre yow. billaay ak maa comprendre. xam naa ne tu es le sang. <laughs>